ak la ci yooyu yëpp rek xeej baag wala deret jaag yëpp rek loolu moom euh, histoire la te lu ñu bind la euh, mi ngi ci téere yi te ku dem ci euh, téere yi sëñ mu sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana danga ko fa fekk boo ko mag ñi nga xam ne ñoom du ñu waxee seen bakkan yàgg nañ koy nettali histoire la àdduna toll na foo xam ne nit ñi léegi loo wax ñu weddi ko moo ji saar yi sax léegi dañ koy weddi dañuy weddi ñi nga xam ne dañu am ay kiraama dañu weddi ñi nga xam ne dañuy def ay xar baax dañoo ñëw ci jamono boo xam ne ni kenn ku ci nekk da nga jël xel mu rëy maanaam fi mu toll nii dañoo toll fi tubaab yi toll maanaam léegi dañuy àttewoo ci sunu xel lu ñu suñu xel mayu rek dootuñu ko gëm te bu ñu eggee foofu noonu rek ñoog tubaab yi ay yem te foofu la ñuy bëgg yegg te loolu mag ñi waxoon nañ ko dana egg ci maanaam ñi nga xam ne dañuy xeltu di toppandoo tubaab yi ba tubaab yi dugal leen ci seen xeltu yooyu noonu ba lépp luñ leen indi rek ñu weddi ko dañuy dem ba nuroog tubaab yi dootuñu bàyyi dara ci tubaab yi te looloo am te loolu mag ñi gisoon nañ ko ba wax ko xam nga kiraama ak mox ji saata xar noonu laa ko mën a waxee mooy du fi a jóg ba keroog eh, bisi pénc du fi mës a jóg képp koo jàpp ne kiraama ak mox ji saat bi nga xam ne suñu borom saa su nekk da koy wane ci nu mu ko neexee di ko jaarale ci doomu aadama yu doomu aadama yu leen neex loolu xarañteg suñu borom la suñu borom saa su nekk day wane boppam ci doomu aadama yi moo ji saat ma wax leen ci tuuti rek ngeen xam ko yéen ci seen jëmmi bopp sax am na ay kiraama yu nekk ci seen jëmm da ngeen ko dut xalaat ndax talu leen ko lu dul rafet rafet adduna yeeg matière yeeg yooyu moo tax gisutul ak xaalis bi yeeg lekk yeeg naa ni mais doomu aadama bu xalaatee li nekk ci biiram lépp leen lu ci nekk ak la muy joxe ak fa muy jaar ak loolu rek yaakaar naa ne doy na sëkk sëkk sëkk sëkk xar baax te loolu yëpp voilà bàyyi wuñ ci xel maanaam euh, ku mën a gëm tubaab bi lii nga xam da koo defar nga xam da cee son daj lu nekk ba indil lu ko ñu mën a gëm tubaab yi ba mën a gëm suñu borom bi nga xam moo leen jox xel yoo xam ne ni xel yooyu lañ ko defaree. ba maanaam nga mën a nekk fii di wax ku nekk Amérique mën a gis moom nga xam ne man ngeen di waxtaan ak lépp ba mën a gëm ñooñu ca loola ñu def léegi lan moo tax kan mënoo gëm lii nga xam ni moo di ay mox ji saat te ñii ay nit suñ borom lañ yoo xam ne nii yaakaar naa ne loolu yow lay ump waaye ñoom di leen ump egg nañ egg nañ foo xam ne suñ borom lépp luñ ni lépp luñ bëgg a def dañ koy def ndax ay kiraama moom euh, ci histoire yu yàgg gis nga ba fii jëmmi yàlla ji toll tey ndax xoolal waa waa askabul kafi xam nga loolu histoire nettali nu ko tey lu am la ak yeneen yeneen yu baree baree bare ak yoo xam ne xewaat na fii diggante bi ak yoo xam ne dana xewaat ci jamono yi ñu jëm incha allahu rabbi kat na suñ borom kon mox ji saata kiraama xarba du fi mus jóge doomu aadama yi nag dañuy dem ba egg foo xam ne ci ak réer ndax ci xel lañuy àttewoo léegi xel de baax na lool waaye nag am na yoo xam ne ni boo ko bëggee weddi rek sam xel nax na la ndax tubaab yi fi mu toll nii boo doon yéeg a ko wàcc wala dox ci jaww ji ñoom seen xel lim leen may rek foofu la ñuy mbir mi te dafa mel ni bari na ci jullit yu baree bari yoo xam ne léegi foofu lañ teg mbir mi te mbir mi nekkul foofu noonu dafa am loo xam ne ngëm dëgg wér gu moo lay mën a euh, tax nga mën a egg fenn fi voilà waaye mox ji saata xar baax moom yaakaar naa du fu mu sa jóge te xam naa ni lii mu nettali nii sax ci gaynde gi yaakaar naa am na yu gën a mox ji saata loolu am na yu gën a kiraama yooyu am na yu gën a xar baax yooyu mais loolu euh, yaakaar naa ne gëstukat yi nga xam ne dañuy topp ay téere bu ñu duggee ci téere waaye xam nga bokkut ak ñoo xam ñoom ñoo nekk ci li xew léegi rek nga xam ne daanaka mën naa ne limay may wax saa su nekk rek tubaab yi nax nañ ñu maanaam fexe nañ ñu daal ba nax ñu ba gurgur ñu dugal ñu seen système yi nga xam ne mënul cee génn virus la ci ñun ñu gëm leen nag ba xam ne ni niñ leen gëmee sax léegi gëmeetuñu ni sunu euh, sëriñ ngeen baal parce que nax nañ leen maanaam góox nañ seeni xel te mënatuñ ci dara virus la léegi ci ñoom lépp lu fay jàll. boo leen jàllale loo xam ne seenum xel du ko du ko maanaam seen xel mënu koo gëm duñ ko gëm te jullit bi nag bu eggee foofu naa xoolaat boppam bu baax a baax waaye wàllu yu suñ borom yii ku leen xam xam ni ñu xaritoog suñ borom suñ borom li mu leen maye waxuma la dara waaye ñii xam ne ci àdduna lañ nekk rek di nax nit ñi yor seen i pétaaw kenn xamul seen xar xoofa ñoom dong nit ñi dañ leen di gëm ndax loole ñuy def wax wàllu